ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di bisu korite di bisu mag bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifati al aam li tariqatina al muridiya as sayx muhammadul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 mi ngi sant ñépp di gërëm ñépp di leen ñaanal qabulan xasanan ci mbooleem yëngu yi di leen dénkit tey dénk boppam nu gën a góorlu ci li taxoon yàlla bindu nu andi fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem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 nan teg ci sun kanam waxe sunu boroom ji te mooy wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa sa turadduuna ila alimi alxaybi walchahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun gannaaw bu yàlla maye doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf ju baax ak juban bon ak kàttanu tànn li ci neex mu def dana yonente bi neel nit ñi def leen lu leen soob